waaw tey ñu ngi fi Rock Team moo ànd ak euh, Ndiol Ndiol artiste Rock Team donc Guédiawaye info point com émission xoole artiste ak Mbaye Prési donc ñu ngi fi Rock Team ak Ndiol Ndiol Mr Ndiol maa ngi si jàmm. yeah what's up Prési sama euh, première question mooy kan mooy Ndiol. yeah d' abord euh, salaamaaleykum ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi suivre Guédiawaye info di leen jaajëfal si teewaay bi. waaw kan mooy njool rek dañ koy dañ koy briefing parce que peut être yaatal bi du si xaj quoi benn jeune artiste boo xamante ni fii la nekk Guédiawaye si la yóbbu di nekk label bu ñuy wax Fracture Music euh, génne woon benn projet bu tuddoon Time is Rap après loolu tamit euh, avant loolu sax participation flow la woon après participation flow ñu nekk finaliste jël deuxième place 2015 après si lañ génnee mixtape bu ñuy wax Time is Rap après Time is Rap bi aussi génne nañ fi ci ci ci entre temps génne nañ fi ay ay quelques singles yu si mel ni balu bopp ay All Around Me yoo xamante ne ay haute série la woon après aussi ñu ngi nii nag échange ci suñu préparation album waaw pour bientôt incha allah. yeah waaw njool ñëw na ah, public bi carrément ñu ngi ko découvrir si Flow Up mu dem ba final Flow Up donc euh, Flow Up ban expérience nga si jëlee bu la permettre nga mën a aller de l'avant ban expérience nga si jëlee carrément. waaw flow ba mun naa wax que ne expérience bi ñu am si hip hop 80 pour cent si flow lañ ko jëlee quoi parce que nekkoon nañ di fréquenter milieu bi di def affaire yu bëri mais dès que ñu participer si flow bi après si lañ amee link yu bëri si lañ comprendre lu bëri que tamit xam ne affaire bi gën na sérieux ko benn affaire boo xamante ni just a game wala dañuy fo wala genre affaire yooyu parce que am na yeneen nit yoo xamante ni ay personnalité la ñu ñu suivre commencé ñu tamit xam nga di ñu teg si ko di xaar lu bari si ñun donc gagné nañ ci expérience bu bëree bëri loolu moo gën a tax ñu amaat patience gën a reculer waat tamit jël suñu temps si album bi quoi nekkaat di job voilà. waaw instant bi um, mën nga ñu wax Ndiol fan nga toll si projet album parce que instant si toile bi. Moyai ay projet freestyle yi ngay génne loo ñu mën wax si projet freestyle yi quoi. yeah waaw projet freestyle yi mooy euh, comme xam nga gars dañu di di di bëgg chaque instant ñu sañoon chaque jour chaque lay donc album nekk na loo xamante duñ ko taf tafee da ngay jël sa temps nga ko am li nga bëgg quoi parce que album bi mu ngi dépendre si objectif bu artiste bi quoi comprendre nga loolu moo moo waral freestyle yi ñoon def ragnaar yeeg ragnaar yi des na benn muy cinquième ragnaar bi buñ ko génnee album bi insha allahu rabbi xam naa yéen yéen a ko am en exclusivité novembre insha allah dina génne waaw waaw euh, album boobu loo ñu si mën a wax as tuut lan lañ ci mën a xaar quoi parce que on sait que ne public bi xaar bi yàgg na quoi mm. tout récemment barki démb rek maa ngi si waxtaan ak euh, benn DJ mu ne xaar bi yàgg na quoi donc togg bi yàgg na bon yàpp bi lan lañ ci mën a xaar si album boobu. waaw xam nga mooy li ma la wax sànq rek album dafay dépendre si objectif artiste bi mu ne lii laa bëgg a def quoi. effet bii laa bëgg sama album am ko et que gain bi dama gis que ne am na lu bëri loo xamante ni tey manqué na si quoi parce que bu njëkk da ngay gis artiste génnee album ku si mel ni ay Grand Max Crazy ay cinquième dañuy génnee album album bi continuer di dund. mais léegi au contraire da ngay gis artiste bu génnee album deux mois après album bi day fay ñun nag loolu comme teel nañ gagné expérience boobu ñu ne dañuy jël suñu temps job benn album boo xamante ni bu génnee day recadrer hip hop bi quoi dafay motiver yenn artistes yi ñu dem jaa ngi jiwaat bind dem tamit euh, dafay recherche musicale pour mun a comprendre yenn affaire pour mun a def yenn affaire yoo xamante ni tey dinañ ko mun a téye temps bu bëri di ko di ko di ko di ko cons sans mu nekk benn affaire boo xam ne day éphémère wala morne lay nekk quoi album bi gars yi mun nañ ci xaar lu bëree bëree bëree bëri social xam nga. mun nañ ci xaar tamit euh, ay thèmes yoo xamante ni genre dina dina dina dekki li nga xamante ni moom moo tax a jóg hip hop muy fight pour freedom social living et cetera et cetera bëri na si lu bëri loo xamante ni gars yi mun nañ ko xaar quoi et nañ ci xaar tamit qualité job surtout côté musical quoi job nañ ci vraiment affaire bu lu nice quoi ak ay ay beatmaker yow yu cool quoi. Euh, est-ce que mun nga ñu jox en exclusivité titre album bi fii ci Guédiawaye info point. Wow, uh, album B, da come fai a Ok, d'accord, album B fas jom lay do inshallah. Eh, Donc xaar leen ko album Ndiol first jom lay tudd iya. ak eh, label Rotti. Wa instant eh, bi gis nañ Ndiol yaa ngi ci ay projet rek na. Hmm. Donc mën na est-ce que mën nga ñu wax philosophie freestyle yooyu? Parce que on voit tay da nga ñëw freestyle bi. ñu gis un bi c' est différent deux bi en plus aussi atmosphère yi ngi koy ñu ngi koy yi ngi koy enregistré vidéo yi c' est c' est carrément différent donc lan mooy philosophie euh, euh, freestyle waaw euh, dafa nekk freestyle li ñu ko inspiré moom mooy mooy lu ma la par rapport ak fi gain bi toll et que idéologie bi originale bi moom mooy film dafa am benn série bu tudd Vikings Euh, Ragnar acteur la si euh, guerrier la nit boo xamante ni dafa am objectif par rapport ak fi ay nitam ay ay nit yu ko entouré dafa dañu amoon limite quoi mais moom da ngay gis que ne dafa am objectif bu gën a sori boobu noonu day dem même bu fekkee ne day da après da koy poser ay problème sax day dem jëli ji li mu bëgg quoi objectif freestyle yi loolu la pour wax gain bi que ne ñun instant bi nii dañuy ñëw pour imposer wu pour dépasser limite bi nga xamante ni nit ñi tegoon nañ ñu fii wala genre et cetera affaire yu mel noonu quoi loolu mooy idéologie bi pour wane tamit benn côté boo xamante ni peut-être dañ doon def ay thèmes gars di ko cons yu conscient yu posé yoo xamante ni genre et cetera léegi nag. ci phase safal bi lañ toll quoi phase <laughs> safal bi moo tax ñu dugg si rek naar yi xam nga moo tax style yi ngay gis nii ñu xaw a ñaaw ñàng voilà quoi il faut il faut ñu def loolu xam parce que loolu tamit c'est une boo xamante ni si hip hop la bokk quoi parfois muy am innovation quoi muy am créativité quoi di am affaire yoo xamante ni da nga koy génne gars ne dayam gaan mi lii fan la ko inspiré woo loolu mooy loolu mooy idéologie wu ragnaar bi quoi te avec le temps après yeneen ñu ngi ñëw sax ah yeneen ñu ngi ñëw. waaw non yéen a toujours si dans l' émission xoole artiste tey ñu ngi rock team ak Mr Ndiol donc Ndiol euh, lan mooy say projet à à court terme yoo xam ne mën nañu ko xaar nii. waaw mooy instant album rek la ñuy focus instant bii nii gars yi bu ñu paree si euh, Ragnar 5 bi dinañ leen ko jox du yàgg dara buñ album bi la song parce que mi ngi war novembre. donc euh, am na benn single boo xamante ni moom mooy annoncé album bi extrait de l' album Fass Jom lay nekk dinañ ko génne incha allah du yàgg dara ak benn vidéo voilà quoi incha allah loolu moo fi nekkagum pour l'instant am na yeneen business nag yu ñuy lijjanti boo yoo xam ne géejawaay en général la concerné waaye xam nga bëgg nañ culture urbaine bi gars yi gi ci seen bopp te pourquoi pas ñun ñu nekk si ay acteurs quoi donc kon war na mun a nekk te ñu ngi ñu ngi ñu ngi dox ci loolu quoi. waaw j'espère espère que buñ tegee si projet yooyu di ngeen ci ànd ak info parce que ñu ngi fii j'espère qu'on sera partenaire ce projet donc euh, toujours euh, Ndiol euh, lan mois dernier mot dans l'émission émission Xool et Artistes. waaw incha allah dinañ collaborer déjà on travaille ensemble quoi ñoo far bu ñu nee Guédiawaye mënoo génnee Ndiol mënoo Mbaye Président mënoo génnee info comme Tourbi. voilà quoi dinañ ci job incha allah la ñu xéwal am euh, suñu laas boobu nag mooy dañuy xam ba dañuy sant rek santaat sant borom Touba gërëm tamit gars nga xamante ni ñoom ñoo jàpp si bagage yi gars yëpp su ma limee damay jumka gars ñi nga xam ne sincèrement ñu ngi sonn si njool si business njool parce que gis nga temps bi ñu jël yëpp liggéey la quoi sagee sans gars yi ñu ciy sonn di saara sama bro Cheikh Ndiaye leader ak gars yi nekk si staff bi di job ñëpp waaw respect yéen tamit di leen jaajëfal parce que lii baax na trop artiste day nekk ci ruuxam yenn yi dafay soxla ku ko fa fekk wane li muy def nit ñi gën ko xam gën ko présenter si beneen facette et voilà quoi nice ñu ngi leen di remercier bu baax loolu mooy Last Word bi di wax gars yi nañu xaar album bi incha allah. waaw euh, ñu ngi leen di remercier yéen a ngi woon si Guédiawaye info point com dans l' émission xooli artiste tey ñu ngi woon Rock Team avec Mr Ndiol la présentation Mbaye Prési Bekay moo nekkoon ci jël image yi ñu ngi leen di di dig daje ba beneen yoon sama wañ